fekke ngeen ñëw màggal. ah màggal bi ñu ngi leen sant yàlla bu baax a baax di jël Sëriñ Tuubaa ñu ne amuñu dara mu sant Sëriñ Tuubaa gëm nañ ko fii tey gëm nañ ko fii daaw ay ren nañ ko gën a sant deme nañ fii xewel bi gis nañ ci màggal bi bu baax a baax. man démb laa ñëw. nag nga gisee mooy na ko gën a sant rek Sëñ Tuubaa rek kenn mënu ko nañ sangam morom yi ñu tey ñëw ñëw ñëpp ñëw nañ si màggal bi ku sab Sëñ Tuubaa ñëw nañ si màggal bi ak ku bëgg si sant Sëñ Tuubaa rek daa bëgg si màggal bi ma lay ñaanal yan yàgg fii lool ñu yéenante jàmm bi ñu ngi kaf ak ree dara ñu sant Sëriñ Tuubaa ku sant Sëriñ Tuubaa ah yaakaar naa ni ñu ko rëcc. Fatim Dieng. ban dëkk nga jógee ñëw fi. maa ngi jógee Dakar. Dakar naka nga gisee dëkk bi ak euh, ñaata accident nga ñëw di màggal si. man depuis ba tey maa ngi ñëw Touba di màggal si. waaye euh, yokkute rek sant alhamdulilah dem nañ barabu sëriñ bu mag bi jóge fa dem bara bu sëriñ Fallou di ñaan yàlla màggal gi luñ si def rek bu déwénee yàlla nañ si am lu ko ëpp. macha allah yoonu sëriñ Touba moom amul fay lu si waaye def rek sëriñ bi dina la ko fay moo tax dañuy ñaan yàlla di ko teew ay at yu bëree bëri bëri. ndax dal dal nañ leen dal dal bu neex waaw neex na moom daayira nooru daare nii bu Touba Thiaroye Géej lañ jóge waaye moom macha allah moom macha allah moom. ci wàllu ziar tamit amuñu benn jafe-jafe. déedéet amuñu benn jafe-jafe ziar nañ bu baax alhamdulilah. waaw ziar nañ la nga jot a ñaan ci ci ci ba nga ñëw ci ba nga ñëw ah, ñaan naa yàlla suñu borom bi yàlla nañu defal gudd fan defal ñu tawféex defal ñu sutura may ñu daal jàmm ju bëree bëri réew mi yàlla def fi jàmm def fi xéewal macha allah daal. waaw kon ni ñu leen ko digle woon ci seen chaîne télévision bu taw Tawfekh Production dinañ leen toppal lépp li nga xamante ni moo am ci màggal gi euh, tey jii ñëw nañ fii ci jumaa ji ci euh, julli ajuma gi euh, gis ngeen li nga xamante ni ñoom la mbooloo mi wax ci dañuy gisee dëkk bi ak màggalu reen gi kon dinañ wëy di wan li nga xamante ni moo am ci dëkk bi fii ci tubaa ci màggal gi nga xamante ni mooy édition 2018 ci li fi war a am lépp ci ba nga xamante ni ci lañ egg ci bisu màggal gi asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa